nuyu nuyu sang yi tedd ci sang yi tedd yi nekk ci yëpp sang yu góor yi sang yu jigéen yi sang yu mag yi ak sang yu ndaw yi maa ngi ciy jiital sëriñ bu nga xam ne taxawaay bu Kaolack nëbbatuwut Kaolack Kaolack waa Kaolack bu nekk xam na ko ak ku dul waa Kaolack sax xam nañ ne am na benn ndongo dara bu nekk Kaolack di def loo xam ne waa Kaolack yi xam nañ ne ñu ngi koy njëkk gis ci moom ñu ngi sant yàlla bu baax itam bi nga xam ne mi ngi sos tàmbali liggéey boo xam ne nit ñu bari ñu ngi am ay tiitaange ci liggéey si dina romb ci jàmm wala dina romb ci ay fitna mu tàmbalee ko liggéeyam téere boo xam ne lim lay njëkk a mooy ne bul indi fitna ci àddina bul indi fitna ci sa mbokk li annal fitnata akbar min al xatti ah moo gën a rëy parce que ayam du jeex du xaaj kon yàlla nañu yàlla musal ci fitna su fekkee ni ngi tàmbali liggéeyam tàmbalee ko alxuraan oo ci waa daara yi ñu ñëw fekkee ko loolu ñu mun a am lu dul am njort bu rafet ne dina ko jaarale ci yoon yi nga xam ne ci lay amee ngërmande alxuraan waaye ci lay amee ngërmande yonent yàlla Muhammad waaye ci lay amee ngërmande itam Serigne Cheikh euh, Mountakha Mbacké ah ak mboolem kilifa diine yi nga xam ne. ñi ci senegal te daara itteel leen te xam-xamu alxuraan itteel leen ñu xam itam doolee alxuraan ci nit doolee alxuraan ci jullit waaye doolee alxuraan ci àddina bi yëpp euh, ndax euh, àddina bi compliqué na complication boo xam ne fi ne nit nit yéen yaakaaroon yëpp ne dina ko àggali ci bëgg-bëggam gis na ne loolu yëpp échec na dëgg na dara desu fii comme ni ko sëriñ bu waxee sànq wala ñeneen ñu ko wax ne essayé nañ lu nekk waaye gis nañ ne ba tey demaguñ fenn demaguñ fenn te li ñu wusal ba léegi ñun Sénégal sax ñu taxaw di am kàttan di am doole mooy peuple Sénégal dafa fonk alxuraan te daf ko bëgg ku ko jàng ku ko jàng ñoom ñëpp ñoo xam cofeel bi am ci alxuraan loolu joxe boobu ñu am ci alxuraan tax na mooy barke alxuraan ci Sénégal barke alxuraan boobu itam yàlla moo koy tasaareel jaamano yi ni mu ko neexee par exemple mën na ko jaarale ci loxo sëriñ boobu mu def Sénégal ñu nga xam ne Kaolack ñu nga xam ne kawlax génn tutoon ne Kaolack mën na àgg foofu te Kaolack mën na àgg fu nekk ndax luy àgg rek ca kaw nit moo ko fay àgg rek te Kaolack am na ay nit ñu fi dëkk am na ay jeunes am na ay mag am na ay borom xam-xam am na ay intelligence am na ay expérience mais yooyu yëpp fekk mënuñ ko dajale ba xam fu ñu koy jaarale ndax mu nekk suñu njëriñ bon dafay tasaaroo rek bon dafay tasaaroo rek bokk na ci yi may wax bu ma taseek ñoom may leen li ma gën a nit ci kaw nag mooy amul leader politique bu am doole boo xam ne mën naa taxaw ca kaw di dóor ci taabal yi ne kaw laa kaw laa amaguñ leader politique bu yëngu ñu fii ci kaw nag ah ñu ngi yaakaar génération bu ndaw yi di natt si dugg ci politique ñu ngi yaakaar kenn si ñoom dina feeñe kattan boobu dina feeñe ba ëllëg mu war a taxaw sax ne pourquoi président de la république bu kaw la te lu war a am la euh, te lu mën a am la parce que nañ ko attan attan nañ ko ci xam-xam attan nañ ko ci ci dogu ndax e, région yi Sénégal yëpp boo demee ku gën a sawar ci politique ak outil boo demee Kaolack kenn gënu ko ca sawar boo demee Kaolack kenn gënu ko ca sawar kenn gënu leen a doomu ci seen politique ci groupe sa e, e, li nga xam ne leader bi leen gëm jiitu naa gëm jiite leen lu mu leen sant rek ci politique préparé nañ pour def ko te loolu yëpp mooy àggali ni ci jëm waaye nga xam ne moom nga soxla kon su fekkee bésu tàmbali liggéey politique ñu ngi koy commencé jàllale ko alquran alquran di la wax awalan lu mu la yëkk a wax wa qulu linnaasi husna wa qulu linnaasi husna waxante leen jàmm ndax ngeen mën a dund ci jàmm waxante leen wax bu rafet ndax ngeen mën a dund ci lu rafet waxal nit waxal nit ne ko ah mais sa ñëw bi rafet na kontaan nga ko ko te na delloo waaye su fekkee nit mënoo gis lu baaxam lu ñaawam rek la mën a nga gis ci moom kon bul xaar ci moom lu dul lu ñaaw te def naa loolu benn état boo xam ne suñ ñor comme comme comme nitu vingt et unième siècle ci vingt et unième siècle nga xam ne lépp ñor na xam-xam bi ñor na euh, économique bi ñor na lépp ñor na waaye nag loolu ñor naka lañ koy naka lañ ci jëlee suñu wàll dund ko dundun boo xam ne sénégalais bu nekk Kaolack waa bu nekk Sine Saloum bu nekk dina yëg ne vraiment ñu ngi ñu ngi dooleeku waaye naka la ñuy ko ndax man bokk naa ci ñu doole wala déet ku nekk war na seet taxawaayam ndax bokk naa ci ñu doole su fekkee yaa ngi bokk yaa ngi bokkee ci ñiy dolli ne am na loo xam ne aar dama bu yàgg ba tey muy alxuraan muy diine bon diine boobu daan ma aar alxuraan boobu daan ma aar lépp lu mu mën def ci kattan pour. jëfee ko pour dundee ko sama digganteeg sama bopp sama digganteeg nit ñi bu boobaa yaa ngi tabax tabax yaa ngi tabax yaa ngi bokk waaye su fekkee nag bokkoo ci loolu waaye am naa nu ma waxee mun naa wax nu ma neex mën naa koo waxee boo waxee boo waxee nu la neex rek nu la neexee rek ñu waxee ak yow yi tamit ñoom ni leen neex te defe nag loolu du àggale nit fenn ah nañ jéem a xam bu baax a baax comme niñ ko jàngee ci suñ leader yi nga xam ne jiitu nañu yàgg nañoo jàngal yàgg nañoo tëralal yàgg nañoo won ne lii mooy mbaax am na benn xale bu ma laaj sëriñ bi mbaax mooy lan mbaax fu muy jógee mbaax fu muy jógee d'abord mbaax dina jógee ci ay waajur parce que ni la sa waajur defee ndax kenn ku nekk ci ñun balaa génn ci mbedd mi ci kër waajuram lay tàmbalee lam jëlee ci kër waajuram loolu la yóbbu ci mbedd mi su ko defee li ngay njëkk a jëlee si kër waajur mooy sama bàyyi laa njëkk a gis mu julli suma bàyyi laa njëkk a sumu mu jàpp suma yaay laa njëkk a sumu mu jàpp suma yaay laa njëkk a gis mu yooyu yëpp ay mbaax la yoo xam ne da nga koy génnee ci sa biir kër bala ngaa dem feneen boo demee keneen koo dem itam da dem rek pour mu leeralal la loolu nga gisoon ci sa baay mu di ko def loolu nga gisoon ci sa yaay mu di ko def bu ko defee mu leeral lal la ne la lii lii la lii lii la nga gën koo xam mu gën a sax sa xol nag ci jotaay bi yëpp moom la ñu Cheikh mooy moom la Serigne bu di tàmbalee liggéeyam yàlla na ci alxuraan barke alxuraan àgg yàlla na ci yari alxuraan àgg na ci jikkooy alxuraan àgg yi nga xam ne daf ñuy teetal suñ diggante ak noonoo wa taqu fitnatan laa tusibanna lazina zalamu minkum xaasatan nañu waxtandiku fitna parce que fitna boo ko taalee rek xamoo li nga tàllal la yàlla nañu incha allah musal laanallaahu man ay qazaha moo tax yonent mu ne laanallaahu man ay xasaxaa na ngeen wattandiku fitna parce que fitna bu tàkkee rek musiba la te yow mi ko taal yaa ngi dugg ci biir ñaan yàlla yonent ndax daf ne laanallaahu man ay qazaha kooku bon di taal fitna na nga xam ne nun ci biir ñaan yàlla yonent te ñaan yàlla yonent ku nekk xam ne ne lu yàlla nangu la bon ñu wattandiku fitna ci bés yi ñu ñëw nga xam ne ñun ñëpp a koy fóoglu ak euh, ñi ngi koy fuuglu ak ragal ñi ngi koy fuuglu ak yaakaar ñi ngi koy fuuglu itam euh, mu nekk place yoo xam ne yëngatu yoo xam ne ñii profité ñi nangam ñii dëggu ñoom ñëpp a ngi ci biir ànd bokk di yëngatu waaye nañ jéem a góorgóorlu bu baax rek ñu gis ne liñ ci mën a profité yëpp bu dellu si wut ci Kaolack ci njëriñ rek profité woo dara waaye fekkee nag profité liñ ci wut mooy nag Kaolack euh, yokk na Kaolack dund na kawlax am lu lu lu lu nit mën a def dëkkam rek waa Kaolack war na koo jéem a def dëkkam te ku ne ku ne xam na ne waa Kaolack euh, wax naa ko keroog ci gàmmu gi Kaolack bu nawet jotee kenn dootu génn génnati ñoom seen bopp dootuñ fi ñëwati parce que amut génn waay euh, Kaolack bu bu nawet jotee sibbiru bi ñëw ndax yooyu bëri yi kawlax salte ci àddina bi defe naa amul dëkk bu ko gën a salte te pour pourtant ñun waa Kaolack dañu voilà ñu ngi nii ñu ngi nii waa Kaolack lañ ah nañu yàlla dimbale bañ mën a taxaw suñu kawlax bu baax a baax ci barke alxuraan bi nga xam ne moo ñu dajale tey ñu fas ci yéene tabax ci liggéey boo xam ne moom lañ bëgg mu am Kaolack dooleeku Kaolack yokku Kaolack jeunesse su Kaolack faamu Kaolack jigéenu Kaolack yépp ah, yàlla boole leen ci benn nekkuwaay boo xam ne danañ yëg ne lu région capitale régional di mën a am rek suñ capitale régional bi mun na am lu ko ëpp ah yal nañu yàlla may loolu gërëm bu baax sëriñ bu ma ooyee ci jotaay bi nga xam ne jotaayu alxuraan la d'abord balaa nekk wax ne sax moom jotaayu alxuraan la après politique bi day door a commencé bon ñu ngi daje ci jotaayu alxuraan bi ñaan yàlla yàlla ñu yàlla wàcceel barke alxuraan ci suñ jotaay bi yàlla ñu yàlla àndale ak ndimbalu alxuraan ci suñu jotaay bi yàlla nañu yàlla àndal ñu may ñu am yëgu alxuraan ci suñu bopp parce que boo amee yëgu alxuraan ci sa bopp rek kenn mënu laa teree respecté sa morom nit ah waaye boo amul yëgu alxuraan ci sa dund rek vraiment tooñ du dara ci yow xaste du dara ci yow ñaawal salaameñ du dara ci yow te loolu yëpp du dolli dara loolu yëpp du dolli dara ñaawoo rek day dolli waaye du dolli lu baax yàlla nañu yàlla dimbale ñu mën a àgg fi ñu jëm ak jikko yi nga xam ne mooy jikko nit bu civilisé vingt et unième siècle nit bu civilisé la bëgg li ngay défendre sax fekkee lu bon la waaye da nga koy def avec civilisation da koy def ak ay kàddu yoo xam ne bu ko nit déggee dana dem ba foog ne li ngay wax dëgg la fekk dafa civilisé rek di wax ak yow civilisation waaye gëstu la sa biir lan la yàlla nañu yàlla dimbale salaamaaleykum rahmatullahi wa jaadiloon billati yaa ahsanu mu wax na ko mooy loolu nañ waxee jàmm rek ah ah ah, ah, ah, ah. sama doom la ma ñoo ñoo bokk yëpp ñoo bokk yëpp incha allah. amiin amiin yaa rabbi amiin.